ñetti camion sapeur pompier yi nga xam ne day fay lakk ak benn ambulance bi ñu ngi bàyyeekoo ca réewum itali kii di Mohamed Ali Ndiaye moo ko toppatoo taxawu ko ba mu ñëw fii ci Sénégal ci njàppandalu mairie bu Touba ñu lijjanti kayit yi ba mu agsi fii ci Touba ñu jébbal ko waa Touba ca kanam kilifa yi nga xam ne nag ñoo ŋànk liggéeyub tubaa ci kanam demoon ci ba ji dëppook ñaari fan ci juin atum 2021 ngir jébbal ko kilifa yi sapeur pompier yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba jàppale leen ko ci seenub liggéey. bi ñu yàlla dogalee Mouhamadou Aliou Ndiaye toppatoo oto yi ñu war a ñëw ñu koy joxe xam la ne ku ci commune ci ko lay ñëw ni ñu ko ko waxee suñu blaat ko da sawar lool te ci daal ci taxaw ci saas bind lettre bi yónnee a ñëw. kon day mel na jëf la joo xam ne Touba ci kanam ak maire bi ñu ànd jëf ko te loolu ni ma daa waxee rek wax naa ko Abdoulaye ay yoon noo bokk tool bu ñuy xëy jëw ñi mën naa wute sas yi doo yi mën naa wuute waaye tool bi moom benn la ñun ñëpp tollu toolu Sëñ Touba la ñuy xëy mooy lu jëm kanam dëkk bi kon lu muy def nun moom la muy def noonu la koy defal noonu lu ñuy def moom la ñu koy defal kon suñu àndee def lu mel nii loolu dañ ciy gën a sant yàlla gën cee sant Sëñ Touba di wax ne na noonu gën a jëm kanam incha allahu taala di sant yi sëñ Mamadou Aliou jaay mi nga xam ne moo toppatoo oto yi te lii ñëpp ci di ko jaajëfal baax ci taxawaayam ak itteem ci bëgg dëkk bi ndax bàyyi xel réewam bàyyi xel dëkkam bàyyi xel njabootu sëñ Tuubaa gi ko yàlla boole muy teel wi sëñ bàyyi na ko xel tax bu def am itte ju toll ne di toppatoo lii muy ñëw ci dëkk bi kon Mamadou Aliou ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant mboolem waa bokk taalibe yi mu nekkal état yi ci njiitul waa coordination bi waaye sëñ Jóob ñu ko jiite mi ngi fi teew ak sëñ Boyo Caam ñoom ñi leen sant ndax bi oto yi ko wala bagage bu mën a doon rek su lijjanti ci seen loxo lañ koy teg ñoo koy toppatoo saytu ko dem seeti ko yóbbu ko ca kaw ba dugal ko indi ko ak suñu kon ñoom itam amal nañ leen ak cant bu baax ñoom ñi nga xam ne ñooy taalibe yi féete état bi ak mboolem nag waa Touba ca kanam bi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ci liggéey bi coot yu ne rawatina bagage yi bu ñëwee ñi nga xam ne ñoo ko doon taxaw ba génnee ko ci toog ba indi ko Touba ñun ñëpp amal nañ leen cant yàlla na suñ bi nangu jëf yëpp te boole nu fay dëkk bi laaj na gox bu ne na am kaa soppal ko ko loolu maa ngi koy wax di ko wax ci ko suñu émission waatu Touba Ca Kanam di ko yóbban si kilifa nañ bàyyi xel dëkk bi ci googu wet dëkk bi penku soowu gànnaaw saalum kenn ku ne war naa am sàppal ko boo xam ne waxtu bu daaw xewee ñooñu ñooy daal di jub mën a dem daal di taxaw ci jëye jooju waaye dëkk bi néew na lool benn kaa soppal ko bu nekk di wax ni jëf ji tey dañ fi teew indi sabab bam yoo xamante ni euh, commandant le général des sapeurs-pompiers d'Italie moom moo ko joxe ingénieur Fabio Dadilo ñu jël lépp teg ko ci loxo euh, Touba ca kanam ba mu jaaree ci commune bi ñëw ci loxo Touba ca kanam Touba ca kanam damaa bëggoon leeral ni Touba ca kanam moom moo fay lépp ba mu jugee ca pooru Livorno ba ba egsi ci pooru Dakar ba ci génn bi ba indi ko ci Touba pour jébbal ko sapeurs-pompiers Touba bi Touba ca kanam moo fay lépp Touba ca kanam moo fay tam sama billet pour ma ñëw seede jëf ji donc ñu ngi sant di ñaan sëñ Abibullahi Mbacke Fallou lu yàgg te wér Touba ca kanam gën a jëm ca kanam damay wax samay kàddu sax wax naa ko sama baay Moussa ma ne ko Touba war a dem ca kanam suñu jëm yi ñoo a dem ca kanam parce que lu nekk ajana ma nga ca ajana ñun ñoo ko war a fekk ñun ñoo war a jaayante jëm ca kanam muy convention boo xam ne nii entre euh, Italie muy euh, sapeur yi mais ko mën a wax yi nekk Italie ak yi nekk euh, mairie Touba ñu amoon benn convention boo xam ne dañu ko jaaree ci Touba ci kanam bokk ànd àndandoo liggéeyoon ko ngir lan bëgg ba séenee wuti loo xam ne nii njëriñul Touba lay doon njëriñul dëkk bi lay doon Touba ci kanam ñëwoon bu invité waale maire bi boole ko ci ngir euh, dafa am loo xam ne administration lay demee loo xam ne mënul faaw maire di ci dàkk ngir dëkk ak dëkk dafa am loo xam ne bu buñ koy signante ak convention lay doon muy entre ñaari maire yi loolu moo waral ñu jël maire bi Touba dugal ko ci comme ñoo bokk liggéey bi ànd ko ak waa Touba ci kanam ngir ñu fexe ba euh, matériel bi ngeen gis tey mën a jóge Italie ñëw kon nag muy lu rafet muy liggéey boo xam ne mooy li ma leen di wax rek ne Touba ci kanam ak mairie Touba ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk lépp lii rek wane waan na ko tey jii lii nag dafay wane rek ne euh, kenn mënta dem wàcc sa morom ci ñun ñi nga xam ne ñoo liggéey sëriñ bi muy xam muy sapeur pompier yi ne fii ci dëkk bi ndax lii kenn mës koo gis euh, dem ba nga liggéenti lijjanti say dem ba say sapeur say oto ak say ambulance yëpp ñëw jébbalaat ko administration tegaat ko seen loxo loolu yaakaar nañu Sëriñ rek moo ko moo ko moo ko kon nag loolu gën a ñaanal Touba ci kanam gën a jàpp jàppale leen ñi nga xam ne ñoo nekk seeni i ndaw ci nekk ci Italie képp koo xam ne gis nga ci lu mel nii ca mën koo lijjanti ca réew ma mairie Touba moom taxaw na bu convention jotee mu taxaw ngir signé ko ngir loolu mën a ñëw Touba ci kanam yi taxaw na ngir collaborer ak mairie bi ba lépp loo xam ne war naa jëm si Touba ñu taxaw ci ndax loolu rek mooy li defar dëkk bi ci loolu rek lañ bëgg. waa sapeur pompier bu Touba bég nañu lool ci jëfu Touba ca kanam gi. ndax dugguleet bu yàggul dara ci at yi ñu génn am na ay camion yuy fay lakk yoo xam ne jébbaloon nañ ko waa sapeur pompier yi ñi nga xam ne ñooy kilifay sapeur pompier bu Touba di sàkku ci waa Touba ca kanam ngir ñu amaat beneen caserne ci dëkk bu sell bi di Touba ndax benn bi doyul rek ci dëkk bi ndax dëkk bi dafa yaatu lool léegi. Touba tey ku ne xam na ni dëkk buy màgg la ku ne xam na ni moyens yi ñu indi bu fekkee see moyens yi nekk ci camp bi am sax fu mbaa buñ ko amee it bu ñuy génn génn bi dina am jafe-jafe moo tax jaadu na euh, loolu vraiment Serigne Habib yow laa koy wax euh, ñu am beneen caserne. moo xam ne ni dina ma tax ñu éclater moyen yi ndax bu lakk amee ci benn gox engin bi war a jóge fii mën na yéex a àgg te bu ñu amoon beneen caserne bu kee départ kii départ rek. Mhm. jàpp naa ne dinañu mën a liggéey liggéey bu am solo ndax moyen yi tubaar fokkal la bëri na. ñett yi ngeen joxe bu fekk see ñaari fekk si li état def day mel ni tey ci caserne Sénégal amul caserne bu ëpp moyen caserne Touba loolu nag yéen leen koy sant di leen ko gërëm di wax sama mbokk yeneen gox yi lii exemple la boo xam ne ku ci ne war nga ko roy ndax euh, état yéen xam ngeen ni comprendre ngeen ni état mënta def lépp waaw état il faut mu am ñu ci jàpp kan mooy état ñun ñooy état ñëpp ay état yéen loolu ngeen comprendre moo tax xaaru leen état ngeen ñëw pour toxlu ci programme mu état bi indi lii parce que xam ngeen ni seen population ngeen koy defal xam ngeen ni senegal gi yëpp ngeen koy defal. ñun sapeur pompier nag euh, mënuñu dul leen sant leen ndax lii ñu def ko geste bu noble la geste waroon na ku nekk mu def ko euh, ndax lii ngeen def nii defal ngeen ko seen bopp xëy na defal ngeen ko. waa Touba waaye population ngeen ko defal ndax euh, oto yi population bi lay sauver. Mhm. kon nag mën na noo wax ni defal liggéeyal ngeen yàlla ci lii ngeen def nii euh, lii day ñëw renforcer programme bi nga xam ni moom la président de la république teg génne ñaar fukk ak juróom ci milliards pour équiper sapeur pompier mooy engins yu bees yi ngeen gis ñu ñëw te benn bu ci nekk di jar trois cent millions kon yéen dafa mel ni da ngeen feelu président wala ngeen dugg ci biir programme ndax li ngeen def day ñëw fekk si renforcer capacité opérationnelle bu Touba. Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke mi nga xam ne moo fa teewaloon xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou santaat na bu baax Mohamed Ali Ndiaye mi nga xam ne moo taxawu oto yi ba mu ñëw ñu jébbal ko waa Touba ca kanam ñoom it ñu jébbal ko waa sapeur pompier. mu soññaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ci taxawaay bi nga xam ne war nañ koo am ci liggéeyub tubaa ca kanam. te li may wax ne Touba day loo xam ne benn loxo kese mënu koo defar ñëpp ay ànd di ko defar état kese mënu ko kon maire kese mënu ko benn kuréel képp mënta dem bàyyi moroom mu sotti ñëpp ay ànd rek mu door a mën a sotti ñëpp ànd gi nag bunt bi ngeen ci ubbi ci Touba ci kanam. day bunt boo xam ne ni ko sëriñ taxaay waxe dafa mel ne lu leen sëriñ bi dencaloon la waaye mooy bunt bi ci mënta ñàkk tàllal loxo àdduna sépp te mu la cee dolli ko at mooy noonu ñu wax ne sëriñ Safa daanaka sëriñ Mbàkke sëriñ Safa daana ko wax wala mag ñi daanañ ko yàgg nañ ko wax nit ñi boo bëggee ànd ak ñoom te bëgg ngeen bokk liggéey di leen laaj luñ man te di ko def fuñ xam kon defe naa ñaar téeméer ci weer yomb na ko nekk kon loolu laaj luñ man la fi ñu koy defee ñu koy xam bu baax bi nit ñi xamee fi ñu koy def tax na yëmatuñ ci ñaar téeméer kenn ku ne da ngaa gëm ne Touba ci kanam defal Touba ko tax lépp lu ñu la wàcc Touba ci loo ci def ko ba jéem loo mënut loolu moo tax te defar googu moo waral lépp loo xam ne Touba ci kanam taalibe yi jox nañ leen ko ngir sëriñ bi sëriñ Abibu yaag ñi nga àndal ñëpp ngeen ànd delloo ko sëriñ bi ci liggéey bi loolu moo tax yemalewu leen ko ci dafa ruur kese yemalewu leen ko ci tabax hôpital kese yemulewu leen ko ci assainissement kese lépp yéen a nga ci loolu mooy waral ngeen di ami ambulance di ko joxe ci hôpital yi dem ba am oto sapeur pompier di ko jébbalaat sapeur pompier liggéey Sëriñ Tuubaa noonu la war a defee Sëriñ Tuubaa àdduna sépp ko tax a jóg dimbal àdduna rawaat na dimbale réewam rawaat na taxaw jullit ñi kon lépp loo xam ne lu mën a dellu ci jullit ñi la wala dellu ci réew mi li dafa réew mi la loolu loo taxoon Sëriñ Tuubaa jóg kon Sëriñ Tuubaa ku koy dundalal foofu ngay xool foofu ngay dox jëm lépp loo am attan ko delloo ci yàlla jaarale ko ci Serigne Touba te di ko nangu di ko ful di ko delloo ci Serigne Touba kon bagage yi ñu andi tey leen li di ab ambulance war ko yóbbu ci poste de santé Darou Rahman ñoo andi oto sapeur pompier yi war ko jébal kilifa ak sapeur pompier yi ñoom itam liggéeyal réew mi rek ci lañ koy delloo li bindee bi rek ci lañ koy delloo ku ne xam ne liggéeyu sapeur pompier mas naa ko wax sëñ bi daayira sapeur pompier ñëw man ne ko ñii li ñuy jaayante bu ñuy liggéey man loolu dafa ba nga xam ne dama ko gëm mooy sowe mbaa ñu des ca loolu mooy jaayante sapeur pompier soo opérir e loolu dañ du am solo lu ñu war di jàngale la lu ñu di fàttali la doomu aadama noonu la war a jéem a xettalee doomu aadama ne moom bu dimbalee doomu aadama ne moom attan ci teg ba kanam boobaa yàlla moo leen di boole dimbale loolu luñ gëm la te lu am solo la sapeur pompier kon ku leen di dimbalewaat seen liggéey itam nag mi ngi ci seen biir jaayante googu mi ngi ci biir liggéeyal yàlla ci bindeef yooyu te loolu ci la Touba ci kanam lépp lu ñëw ci Touba ci kanam nag fii ci képp lay dellu bi sëñ Touba. Touba ca kanam nii rek la ko fas yéenee jàppoo lu tàbbi ci ay loxoom mu defaat ko ci dëkk bu sell bi di Touba def ko foo xam ne fu taalibe yi di teg seen bët la muy di laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.